di loo xam ne lu rëy la lu màgg la amul amul lu muy tollool xàq ñaari jur amul lu muy tollool ay wayjur borom bi subhaanahu wa taala moo màggal seen àq ndax daf koy lëkkaleeg ñaar yu màgg loo xam ne day wone màggug ay waajur kon màggug àqi waajur lu njëkk la mooy li borom bi subhaanahu wa taala gën a bëgg nga xam ne moo tax mu bind jaam ñépp jaam ñëpp li tax mu bind leen mooy ñu jaamu ko kon loolu moo gën a màgg ci ndigali yàlla yi waaye li gën a màgg ci tere yàlla yi mooy ku ko bokkaale moom la gën a bañ kon bu tuddee ñaar yooyu nag lu mu ca sësale rek ñor na ko lu mu ca sësale ñor na ko waabudullah wala tushriku bihi shay'a daal ci tey nag wa bil walidayni ihsana na ngeen jaamu yàlla mi nga moo leen bind ndax mooy ndigal li gën a rëy gën a màgg waaye na ngeen wattandiku bokkaale yàlla ndax ku bokkaale yàlla jaamu yàlla goo mën a def lu mu rëy rëy rëy lu mu rafet rafet danga koy ñàkk wala nashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min alxaasirin yonent bi sax yàlla dana kon ba ma bokkaalee ak lenn walla ak kenn jëf jëpp ji nga jaamu woon lépp danga nga koy ñàkk kon bu ca tegee nag ne waaye ñaari waajur na ngeen rafetal jëme ci ñoom nag kon loolu mooy dayo ak wàcc waayu ñaari waajur mooy dayo ak wàcc ñaari wayjur di lu mat bàyyi xel waxaat ko faneen ci waneen waxin woo xam ne ñoo bokk ñoom ñaar ba léegi ab àtte mooy lim gën a bëgg koo def mooy jaamu ko moom la digle lim gën a bañ mooy ko bokkaale dal di fay joxe waat ñaari wayjur daldi koy leeral nag ci geneen anam wa rabbuka an taabudu illa iyaa wa qadaa rabbuka allaa taabudu illaa iyaa allaa taabudu ibaada gi ñëw gim digle illaa iyaa bañ bokkaale gi ñëw mu yàlla nee na na ngeen li mu li mu digle atte ko ngeen war koo def mooy na jaamu ko moom képp bu leen ko booleeg dara daal di ci teg ni wabil walidayni ihsana seen ñaari wayjur na ngeen rafetal jëme ci ñoom na ngeen rafetal jëme ci ñoom foofa it yàlla leeral wayjur wi gën a jafee nekkal waajur wu gën a jafee nekkal waajur woo xam ne boo xëyee mu xëy boo nekkee say soxla mu nekk say soxla boo nekkee say yitte mu nekk ay yitteem waajur woowu jafe-jafe amagul waaye waajur wu dem ba mënul gul boppam dara wa man nu'ammirhu nankusuhu fil xalq dem ba yàlla na gett ak dundam lam manoon lépp mu ñàkk ko ñàkk kàttanam lam xamoon xamatu ko lam daan defal boppam lépp ñu war koo defal waajur woowo moo jafee toppatoo mbokk yi waajur woowo moo jafee support dëgg moo tax yàlla ne imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma bu ñu demee ba ñaari wajur yi kenn ci ñoom des fi màggat lool kenn ci ñoom des fi màggat lool nga war a yëkkati ak di tëral nam la daan yëkkatee ko tëral war di ko sang nam la daan sange war di ko jox muy lekk nam la daan joxe muy lekk ngay lekk lépp luñ la daan toppatoo nga di ko toppatoo aw kilaahuma wala ñoom ñaari wajur yëpp sax des fi màggat gi fekk leen fi ñu bari dañuy jëppi seeni i waajur seytaan da leen di jay ñuy jëppi seeni i di gëdd seeni i waajur di jànni seeni i waajur naan ko service yi daa bari dooma may ma noppalu tegandaa yi daa bari yàlla ni déedéet falaa taqullahuma uf bu leen jëppi bu leen jànni bu leen ciipatu bu leen meccitu fa taqullahuma uf wala tanharhuma bul yëkkate sa kàddu ci kaw seen kàddu bu leen gëdd mukk nga ne ko nu may def mu ne waqul lahuma qawlan karima ñaari waajur yi foo toll di leen wax wax ju rafet wax ju rafet rafet saxaaba ba mu ñëw alxama bi mu tollee ci sukuraat yonent bi dafa yowal bilaa ibn Rabaah ne ko demal mu wax baati seede yi demal wax ko mu sa sako baati seede yi bi mu ñëwee mun a fexe ba alxama mënut a fexe ba alxama wax baati seede yi mu ñëw ne yonent bi man de sanaa ko ba tàyyi baati seede yi mënu maa fexe bañ wax ko dañoo fas la mel dañoo fas aw la yonent bi sax daal laaj ne ndax ndax ay waajuram ñu ngi dundu ñu ne ko baayam de faatu na waaye yaayam mi ngi dundu mu ne nañ ma ko wool ñu woo ko mu ñëw mu ne ko sa doom nu mbiram deme mu ne ku mën a jaamu yàlla ku mën a julli ku mën a woor ku mën a yudut jeex maanaam tagg ko lool ci jaamu yàlla mu ne ko sa digganteeg moom nag nu mel mu ne ko man de gërëmuma ko man moom mi yaayam lan moo tax gërëmoo ko mu ne yonent bi dafa jëloon soxnaan teg ko sama kaw dafa jël soxnaam teg ko sama kaw yonent bi ne ko jéggal ko yow yaa tax ba ba làmmiñam bi mënut a wax baati seede yi mënut a wax ashhadu an laa ilaaha illallaah pour mu mujj ci moom mu dem ci àljana mu ne man kii fuñ jaar ak man mënu ma koo jéggal yonent bi ne Bilaal kon demal wutal ma mat indil ma ko ñu indi alxama ma taal ko ci kanamu yaayam ndax buñ ko ko deful fii dañ ko def sawar rek xolub njuréel bi daal di wallu dal ne sama doomi xol ñi di ko taal mu ne ko waawaw boo ko jéggalut dañ koy taal sawara la jëm mu ne kon jéggal naa ko yonent bi daal ne bilaal demal xool ba xam li mu wax jéggal naa ko li ma wax tax mu def ko wala àgg na ci xol bi boo ëggut ci xol bi ba léegi dañuy fas làmmiñu alxame du mën a wax baat baat yi bilaal ibnu rabax nee na bi ma jugee nee jubee néeg alxame bi dégg ma ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu muhammadan rasulullah daal di faat keroog biñ ko biñ koy denc biñ ko dencee ba noppi yonent dafa tiim bàmmeel bi mer ba xar kanam bi xonq mu ne giñ naa ci ci yàlla mi nga xam ne sama bakkan bii ci loxoom la nekk képp ci yéen ku ci jël sa soxna teg ko ci sa kaw waajur dee moo dox sa digganteeg sawara walias billah mbokk yi lu mat a bàyyi xel la xesa bii lu mat a ba xel la ñaata nit nga fi gis ñoo xam da ngay dégg naan maire bi dafa naqaree dëkkal ndaw si dama koy wutal appartement ndaw si du fóotal maire bi indi ma ko pour mu fóotal maire bi ndaw si indi ma ko pour mu toggal maire bi maire bi service am ndaw si attanu ko Ah? man sama sama sëy sama digganteek moom la incarné loo xam ne sa digganteek ndaw si kese la ndaw si kañ la la bëgg li nga mel ba ba mu bëgg la sa yaay moo la moo la taxawu ba li naan pëttoo laggi woo ba ndaw si ba ndaw si bëgg la ca ndaw si mën ngeen am léegi problème mu bañ la bàyyi la waaye sa yaay mii du la bàyyi ba mukk moom sa yaay moom du la bàyyi mukk moo tax kenn du jël sa soxna jënde ko sa yaay kenn du ko def di lu mat a bàyyi xel way jur dafa am ay xaq mbokk yi bokk na ci xaq ya ci tënk bu gàtt at-taa'atu bil ma'ruf maanaam say waajur buñ la digalee na nga def buñ la teree na nga bàyyi fii ak liñ lay digal mi ngi nekk lu dëppoog li neex yàlla fii yéeg liñ lay tere mi ngi nekk lu dëppoog li naqar yàlla say waajur buñ la digalee da nga koo war a jëfee buñ la teree da koo war a bàyyi di def seen bànneex dafa war mbokk yi est-ce xam nga ne bu la sa sa baay wala sa yaay doon liggéeyloo ñu yéeni ca jumaa ja ne suba bisu koor la bu subaa ku na nga woor ca liggéey bi la sa baay di liggéeyloo wala sa yaay di la ko liggéeyloo mënu koo boolee koor ga liggéey bi moo gën koor ga ci yow liggéey bi moo gën koor ga ci boo façon naafila di julli ba kabbar fas ab rakka naafila laa wax ba mu julli farata sa yaay woola wala sa baay woola da ngaa war a dagg julli ga wuy ji ko bokk yi wajur am na aq aq ji na sa way jur sa way jur bu dee du ab julit bu dee du ab julit di chrétien ci misaal bu la yónnee sàngara da ngaa war a dem jëndale ko sàngara da nga ko war a jëndal sàngara la des nag moom mooy yow bu dee ab julit nga wala sa baay bu dee ab julit la bu la yónnee sàngara da war a lànk ñaare yu bokkuñ de sa bu dee du ab julit bu la yónnee sàngara demal waaye bu sa baay dee ab julit bu la yónnee sàngara lànkal nag laa taata li maxluqin fi la naan loo sàngara lànkal la dogloo koor farata lànkal bu la teree julli lankal yooyu bokkul wa in jahadaka an tushrika bi ma laysa laka bi ilm fala tutihuma wa saahibuhuma fi dunya maarufa yàlla ne bu dee say waajur dañ laa dugal ci loo xam ne nag lu ma tere la ñu bëgg la koo digal lankal waaye nag nee na dañ lànk nga bu bul ko ñaawal wa saahibuhuma na nga ànd ak ñoom fi dunya maarufa ci njëkk ngay ànd ak ñoom lu yàgg-yàgg bu leen yéefar nga déer xoola Ibrahima ak ak ak ak baay bi lu nekk laabire na ko ko laabire ku nekk laabire na ko ko waaye saa bu koy wax bu bu gisee ne baayam dër na bopp ci jaamu xërëm yi du ko wax mu ko ne sawara nga jëm daan ko sama baay dama ragal naa ci yow ragal naa ci yow kat nangam ak nangam dal la waxuma du ko du ko xupp mukk du ko gëdd mukk du ko terroriser da koy wax waxee nu teggin tiit naa ci yow lool na lii doog boo ko bàyyiwul mbir dana dal sa kaw ndax nangam nangam mooy kon waajur dafa am àq jum am ci li ma ta bàyyi xel baax baax sa waajur da nga ko war a aar saa bu luy lor ñëwee dañ laa wax ne sa waajur bu ngeen di dox ci fu danger nekk da war a ji da war a jiitu yow mu topp sa ginnaaw bu dee foo xam ne teraanga fa nekk da nga koo jiital topp ci ginnaawam ñaar yu bu dee foo xam ne danger fa nekk yow yaa war a jiitu sa baay topp sa ginnaaw wala sa yaay topp sa ginnaaw nga xàllal ko danger ba ba bu ak luy agsi ak yow bu dee nag loo xam ne teraanga moom ab cër la da koy jiital topp ci ginnaawam da nga ko jël topp ci ginnaaw moom lay wax léeg-léeg léeg-léeg gis ko ànd kilifa ñaari barab yooyu leen di jaawale am na foo xam ne da ngay kilifa gi da war a jiitu am na foo xam ne kilifa gi da nga ko war a jiital ñaar ci ñaar yooyu bokkuñ ndax teraanga ji bokku rek foo xam ne nag da ngaa war a xàll wala danger la wala nga protéger ko ñaar yooyu bokkuñ yooti ko bàyyi xel bu baax a baax sa diggante ak sa ak sa ñaari wajur sa diggante ak sa ñaari wajur bokk na ca lépp loo am ci teraanga di feeñal ko ci ñoom lépp loo am ci teraanga feeñ seen képp koo xam ne say yéene say projet dara jiitu ci say waajur réussite da lay yomb képp koo xam ne ñaare buy wax rek daan bu ma amoon nangam ba yóbbu sama baay màkk bu amoon nangam ba tabaxal sama baay bu amoon nangam ba tabax ba defal sama yaay nangam ñaare réussite da koy yomb waaye koo xam ne fa buy wax soxna lay jiital kër oto bien yi boppam ba mu ni daal ne ak xanaa sama ak sama baay nangam nga ne maanaam baay baay mujj wala yaay yaay mujj réussite da koy jafe mbokk yi bokk na ci li ñuy séq ak waajur mooy di salal xolam waajur del fexeel ab xolam di sedd seen nga gët yi waajur maanaam mu xool la bëtam yu xool bi sedd fajug aajo la wallahi bari waa ko am ay jafe-jafe am lu mu tiit di dem di weexal ab ab ab ab maaman lu dul jeex fekk na mi ngi romb waajuram bu seraloon xolu waajuram rek aajo faju bu seraloon xolu waajuram aajo faju kese sa aajo faju damay wax ne dañuy jaawale léeg romb sa baay romb sa baay mu yittewoo aw ñaar téeméer yu ñu jëndee suukar nga romb ko joxoo ko dem jël yut sëriñ ba ñaari junni da nga koo yàq li nga def doonoon na de sa baay yitti woo ñaar téeméer amul lum jënd suukar nga romb ko dem yut sëriñ ba ñaari junni yàq nga ñaari junni yooyu sa baay amul xarum tabaski nga romb ko dem yeewi xarum tabaski mag yuti sab sëriñ boo demoon ba ci sëriñ ba ne ko sama baay bàyyi bu fam tabaski sëriñ ba bu def sëriñ danaan la tabaski mii bu ko fi bàyyi demul yóbbu ko yut sa baay moo yalla moo tax nit ku nekk day baara xam ni fan la darajee waajuram toll dangay wax ne léeg-léeg gis ko ay jaawale mbokk yi suñ doomu sëriñ yaa ngi ni toog ci suuf toog ci kaw ñu toog suuf waa léegi nan ngay mën a maye worma sa doomi sëriñ waxuma la sëb sëriñ waaye sa doomi sëriñ nga may ko worma mu toog ci kaw nga toog ci suuf sa baay nga nangoo toogandoog moom ci kaw mbokk yi nga toogandoog sa bàyyi ci kaw ci ah. sa doomi sëriñ bu la jubee nga wàcc sa baay nga nuyu ko ay dàll ci yëgoo ne yow sa bàyyi nga nuyu ay dàll sa doomi sëriñ bu la jubee nga sumi sa dàll yi mbokk yi loolu kenn xamul lu mu doon way jur moo jiitu ci worma way jur moo jiitu ci worma nañu ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ci cër biñ leen di war a jox ca léeg-léeg jaawale ak jaxase gi day ëpp damay wax xale yi may xale yi may jàngal damay wax leen wallahi jël naa sama baay waaye sama waajur wu jigéen du gis samay dàll samay dàll sama sama yaay du ko gis mukk ci àdduna ci appartement bi nekk bala maa tourné sumi naa samay dàll xalaatuma ko du ma du gis samay dàll mukk ci àdduna kum doon nag da ngay war a bàyyi xel war ma jooju nga xam ne moom nga war a jox say waajur wàcc waaye duñ ko war a jox seral xolam dafa am jeexit ci yow yu rëy rëy rëy amal sa projet rek ñëwal tàllal say loxo sa baay wala sa yaay jox ko addiya ne ko ñaanal ma damaa am yitte sàngam mu mu ne xinnet xool la ñaanal la waaye nañu bàyyi xel ne mbokk yi waajur moom du moroom waay yooyu ni ma ko waxoon léegi rek waajur wu jigéen di yaay moo ci jiitu jiital ko ci jiital lislaam jiital nag maanaam lu yomb layal la lislaam li tax yonent bi ne woon sa yaay moo jiitu wax ko ba muy ñetti yoon mu doog ne sa baay lu yomba leeral la jigéen mooy ëmb mooy ëmb juróom-ñeenti weer juróom-ñeent ñu ne daa toll ab diggante daa toll olof day wax ne daa tollu diggante diggante boo xam ne mën na koo jàll mën na caa des ñu ne kon daa tollu diggante boo amee doom ñu ne lan mucc na mucc na mooy faatu ca mucc na mooy faatu damay faral di wax ne góor ñu baree bari ñaare boo waxee ñuy wax ne. ñuy wax naan doom ju jigéen nangam day wax ne bu doonoon tey dañ naan doom ju góor góor a koy ëmb doom ju jigéen jigéen ëmb ko ja kon ko ëmb benn du du ëmbat kon àq jooju moo tax nag ñu jiite leen ñu jiitu ci bokk yàlla yàlla defal tawfiq baax a baax mboolem arafi alquran yi arafi hadis ah, ah, ah, nu ñu ko waxeete arafi xasida eh, yi salaatu ala nabi istixfaar lu ñu fi def yàlla na ko borom bi nangu ful ko ci fulu boppam benn araf fu ne mën na ko def milliards milliards yoon jox ko sunu wajur wa sëriñ Mor Gueye ak mboolem kum fa fekk ak ku fekk ci barke Cheikh Modou Fadal radiyallahu anhu sangam ba wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.